salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen euh, ziara di nuyu vraiment ñi fi teew ñëpp di leen nuyu aussi yéen waa presse bi di nuyu sénégalais yi yëpp itam euh, sama kàddu li ci njëkk nag mooy vraiment rafetlu initiative bi muy lu am solo euh, keroog bi ñu defee benn jotaay ci Walfajri bi ñu génnee la ma Salma interpellé woon ni ma am na ay xalaat yu ñu am bii ci guddi la ma man Biram Sock di woo xamal ma ni ma ay chroniqueur ak i chroniqueur am ñu ma tudd te ñi ma tudd yi tamit vraiment sama xel dal ci ndax am na ñu ma ci xam mu tudd ma sëñ Saliou Guèye moom ci boppam ma xam ko yàgg ko topp ak ñeneen loolu dalal sama xel ma ni ko loolu man je mangage à 1000 pour cent ci initiative bu mel noonu kon tey suñu ñëwee fii sama teewaay tey ñaari yëf daf koy firndeel muy ñun naka jëkk ci combat wu principe rek lañuy dox principe donc moom moo ñu ñor itam benn bi mooy le respect de la constitution sénégalaise réew mi ñu nekk Sénégal la tudd sénégalais yi ñoo ko moom ñu tënk benn charte boo xam ne nee nañu moom moo ñu lëkkale am sañ-sañ yoo xam ni ñun askan wi dañu ko moom joxuñu ko kenn askan wi moo ko moom kan moo ñuy jiite ci ban diir lay doon loolu askan wi dafa ni bokkul ci li may joxe bokkul ci li ma dénkaane ñu am ku ñu fal mu dem ba ak palam war a jeex mu ni ñu leen naxee mbaay léegi jël naa ci seen sañ-sañ waxuma sax xañ naa leen yéen li ngeen moom waaye nag nday charte réew mi bi ci boppam lay xotti sànni fële ci àll ba moo tax fan yi yëpp ku may dégg dama naan man kenn dootul dégg sama gémmiñ ma ni ko président du am parce que bi muy waat dafa waxoon ni maa ngi waat ne danaa respecter constitution bi te danaa ko respecter lu kon su dellusee ci waatam googu def par jure dellu ci ginnaaw amul lu ñu liyeeti en tout cas personnellement man ak moom Macky Sall laa koy wax waaye doontul man président ci man du ma xaar sax ba le deux mois alors loolu dafay lu am solo loo xam ni mu xam ko te yaakaar naa ni il s'isole de plus en plus même ñi àndoon ak moom sax da nga gis ni nit ñaa ngi génn di wax ni ko ni ko lii ëpp na fan la teg ni day jalgati constitution bi ci adresse am bi mu wax euh, le 3 mi ngi ciy junj naan am na candidat bu jàll boo xam ni loolu dafa violé article 28 bu constitution bi moom ñaata disposition constitution bi la violé article bi. article 31 bi article 92 bi article bi maanaam boo koy lim doo fi jóg te moom mooy ki jiitu koo xam ni moom la ñu war a topp ci ginnaawam di xool ni muy doxee kon su jalgatee yoon bis ni ki tey man damay wax ni lii su jàllee man dootuma def yoon sama bakkan des ci yeeg leneen laa ci yemale mais dootuma def lu ma neex lay def ci réew mi mais loolu ce sera une jungle te kenn warul nangu lool kenn warul ko accepter kon moom dafa waroon respecter la constitution sénégalaise yemul ci loolu cër bi askan wi moom la souveraineté du peuple daf ko war a respecté aussi parce que xëyul xëy fal boppam kon ginnaaw ñoo ko jox loolu cër boobu na xam ni kon ñoo ko defal teraanga jooju mu bàyyi ñu xel te delloo ko léegi nag lii lu ama am solo la maa ngi ciy woo Sénégalais yëpp ñu ñëw jàpp ci ndax combat bi bu kenn jàpp ni combat wu même bu fekkente ni ay chroniqueur ak i chroniqueuse ñoom ñoo ko initié du seen combat lii combat wu askan wi la lii bu kenn jàpp ni combat wu benn parti politique la ndax man bu doon combat wu parti politique la du ngeen ma fi gis mais combat wu askan wi la askanu Sénégal askanu Sénégal lañ fekk mu toog ñu ni fuuf aw ŋaangam ŋaamam loolu moom ñu dégg wala dañ ko xam mbéjum kanam nag borom moo koy fajal boppam. askan wi lañu tooñ kon askan yu moo war a jóg dans son entièreté kenn warul des ñëpp a war a jóg initiative yi nag bari na ñun ñoo ngi jéem a fexe fédéré lépp parce que askan wi wenn askan la Macky mii il faut faudrait que ñu wan ko ni ko moomul nit ñi jëndul nit ñi fan la teg luy ndey nekk ba à quelques heures du démarrage de euh, de la campagne électorale mu naan léegi nee nañu yaakaar nañu foog nañu mel na ni am nañu mën naa nekk ni ay njort nañu kon léegi daq naa en fait la euh, euh, abrogé naa euh, le décret portant convocation du corps électoral fan la teg loolu la crise ne se passe que dans sa tête crise bi muy wax ci boppam képp la nekk mais fii kenn gisufu crise yéen assemblée nationale andi lu ñu leen fa ngeen teg euh, une commission d' enquête parlementaire mhm. yéen a ngi liggéey mhm. d' accord nañ ci d' mais déjà liggéey ngeen déjà c' est tombé à mhm. bërki démb andi nañ fa benn proposition de loi la loi nee nañ elle est passée cette loi scélérate là parce que amu leen sañ-sañ bi kenn joxu leen loolu la assemblée nationale kon te assemblée ngi liggéey même buy jalgati sax mi ngi liggéey alors kon kooku nañ ko teg ni le conseil constitutionnel mi ngi liggéey non superviseur li ñu ko supervisé loo jël na benn dogalam wax na ni fukki kan ñaar fukki candidat yi ñoom ñooy bokk nga d'accord ci nga bañ ci d'accord nga nangu ak nga ñàkk a nangu la constitution sénégalaise notamment en son article 92 moo wax ni conseil constitutionnel dogal bu mu jël kenn mënu ci def recours kenn du ci delsi yamul ci loolu dafay applicable ci tout le monde pouvoir public yi maanaam ci président ak ñépp lay applicable kon ou se trouve le problème su fekkente ni gis nañ ni am na benn candidat wala ay candidats yoo xam ni am nañ double nationalité mais la question est réglée par la constitution waxuma sax man en fait la code électoral l'article 34 de la constitution notamment son alinéa 1 dafa wax ni bu ñu génnee liste définitive bi ba pare ak premier tour bi su fekkente ni am na candidat boo xam ni dafa am empêchement walla mu retiré wu conseil constitutionnel dafay constater loolu la wax publier waat beneen liste c'est mu remplacer ko kon na ñi ko jàpp gis ni am na moom ñaari nationalité nañu informer la conseil constitutionnel mu sukkandiku ci kayit boobu constaté ko retirer ko tout simplement ci liste bi c'est prévu par la constitution du Sénégal kon ana problème bi fi am le problème ne se passe que dans la tête de Macky Sall fii Sénégal problème amu fi moom moo fi indi problème léegi nag man dama am sew-sew boo xam ni dama ko gis te dama bëgg ñu bàyyi ko xel liñ ci war a taxaw danañ ko ci taxaw du moom moo ñu imposer sa volonté mais la volonté du peuple sera respectée mais dafa am sew-sew boo xam ni dama ko gis di ci invité ñëpp aussi ñu bàyyi ko xel man dafa mel ni Macky Sall dafa jàpp ni ay gone la seqal Sénégal jàpp na ni ay nit ñu immature la seqal Sénégal waaye fekk na ni fu xelam yegg rek xelum nit ñi ro weesu na ko Qu'est-ce que Macky Sall a fait Il a juste abrogé le décret convoquant le corps électoral. C'est quoi le corps, électoral Le corps électoral, mooy nit ñiy wote ñooñu la wax ni ngénte wala céet li waroon a am yëgatul yëgaluñ leen ko toog leen seen kër je sais ndax nit ñi def nañ euh, euh, euh, kii remarque bi mais annulé wul élection yi. les élections ne sont pas annulées décret bi mu abrogé c' est le décret 22 83 bu 29 novembre 2023 boobu décret la abrogé mais le décret bi fixé la date de l' au Sénégal kenn abrogé wu ko c' est le décret 2022 2023 plutôt euh, 339 bu 16 février 2023 moo fixé la date de l' élection cette ce décret est toujours en vigueur. kon ni ma ko mën a misaale mooy soxna si seet bi moom dana sëy si seet gi moom maintenir nañ ko waaye ñi ñu ko yëgaloon bu leen ñëw lan la jubloo def Macky Sall ce combat là dañ koy continuer de nee nañ ko da ngay respecté ko kii bi lu mu laaj danañ ko def mais nañu bàyyi sew-sew bi mu bëgg dafa bëgg a piéger tout le monde parce que il sa se fixe pas de limite Macky Sall loolu xaw ma ku muy jaaxal mais man jaaxaluma Macky ne se fixe pas de limite Macky amul lu mu rus amul lu mu jom il ne se fixe pas de limites su fekkente ni élection yi c'est maintenu toujours le 25 c'est toujours maintenu le décret bi ko fixé kenn abrogé ko mi ngi toujours en vigueur c'est le décret 2023 339 bu 16 février 2023 moo fixé la date nit bis bi ñuy voté Sénégal 25 février 2023 décret boobu mi ngi dox ba tey d'ailleurs man depuis le 3 bi mu defee kii laa tàmbali di seet décret bi démb laa koy soog a jot mi ngi nii ci journal officiel décret bi moo fixé datu élection yi te décret bi mi ngi mi ngi en vigueur ba tey kon gis sew-sew bi léegi lan la jublu moom li mu jublu c'est très simple xam na ni il a perdu le système tremble xam na ni ils ont perdu xam na ni son candidat sera battu à plate couture léegi qu'est-ce de faire mooy li mu desee kus néew mu wéy ci njuuj njaaj yam daan def mooy nit ñi ñëpp jàpp nañu élection yi du am d'abord gars yi campagne tuñu quasiment ñoo ngi wax léegi dégg naa léegi ñu ne nañu ay vendredi non campagne c'est tous les jours léegi soo campagne ñun ñëpp xam nañ Sénégal li ëpp ci Sénégal yi nekkuñu ci parti politique yi toujours pratiquement y a de 4 millions de personnes qui votent sur un fichier de plus de 7 millions li ëpp ci Sénégal yi voté wuñu alors nga am campagne war a dem ci ñoom déjà bàyyi nga loolu muy benn perte te bu leen fàtte ñi nga waroon a dem convaincre leen ñoo ne moom duñu foteel majorité bi beneen bi ci des jeunes yi engouement bi amoon ci dem jëli seen i dañ d'identité defatuñ ko ñoom ñëpp la seen yaram yi summeeku te ñoom ñi jëliwul seen carte d'identité duñ ko voteel opposition bi la ñuy voteel mu xañ leen ko ci décision bii mu def pendant ce temps bu kenn natable ni ñoom ñëpp jot nañ seen i carte ñi leen war a voteel ñoom nañ dellu ci Aly Ngouille la ma waxoon rek maay organisé waaye danaa fexe ba ñi ngay ñi may woteel ñëpp danañ jot seen carte ñoom ñëpp jot nañ seen carte kon ñi ko jotul mooy ñi war a ñi leen fi war a jëlee ñooñu bu ñu jëlul seen i carte nan lañ koy voté yemul ci loolu dispositif bi nga war a en fait le fichier électoral d'abord gars yi lijjanti wuñ ko saxati fi mu nii te yoon moo la may nga réclamer ko jël ko gars yi duñu jot ci fichier électoral beneen élément bi nga xam ne nekkaat na ci mooy lan mooy ni effectivement la carte nationale électorale dispositif bi nga xam ne moo nekk ci biir surtout biir réew mi rek bureau yi ak lieu de vote yi mais waajtaay wa nga ca war a def ci ku la fay teewal superviser processus bi formation ba mu laaj ñu defal leen ko ak tàggat leen mais dootoo ko def yaa ngi ci beneen combat fekk na def la divertir moom la ñuy wax euh, PRS PRS problème réaction solution man kat bëgg na maa jël téléphone waa ji te xam naa ni waa ji mi ngi nii toog di ma xool sol lu weer li may def mooy créer problème ba détourner son regard pour mën a jël téléphone bi mooy tu crées un problème par rapport à la réaction bi nga xam ne si dana am tu leur offres une solution c'est la stratégie que déroule en tout cas Macky Sall actuellement te distribuer na les rôles rôles yi kenn ku ci nekk mi ngi ce n'est pas lieu fii ñu koy wax mais distribuer na ay rôles gars yi ñoo ngi ciy jouer mais tey jii moom na xam ni gone yi màgg nañu te askan wi yeewu nañu san ne passera mm-hmm. du jàll alors li mu bëgg mooy bu ñu demee ba coow yi jóg non day respecté constitution bi ba à une semaine mu ni waa d'accord kon léegi j'abdique donc delluwaat naa euh, kii bële le corps électoral mën ngeen ñëw voté si alors amatoo le temps qui est perdu premier tour la candidat bi jàll c'est ce que manigance Macky Sall gis nga loolu nañ ko bàyyi xel na nit ñi yenn parti politique yi candidats yi 20 bu leen amati yitte sax ci ñun manifestation yi ñuy def dem leen ngeen def seen campagne parce que yoon moo leen ko may jumtukaay yi ngeen war a jël yëpp jël leen ko ngeen wax ak askan wi préparer le jour J vingt cinq ngeen préparer wu xeex bi ci des askan wi danañ ko defal boppam man je pense que ni loolu nañu ko bàyyi xel gis nga Macky neewoon na bàyyi na njuuj njaaj waaye tey la gën a nekk ci ay njuuj njaaj te loolu waruñu ko may fii nit ñi nelawuñu alors ñu koy wax ni ko day woote dialogue fii gisuñu fi lu ñuy dialoguer d'ailleurs de quoi on va parler lan la ñuy wax amnistier kan la ñuy amnistier moom qu'est-ce qu'il a peur li fi xew Sénégal ak bakkan yi fi loolu loolu danañ ko lijjanti ku ci mën a d'accord ku ci d'accord ñoo ci yem loolu danañ ko lijjanti Sénégal gi gis nga le Sénégal d'hier la woon woon ni na loolu dootu fi amati il faudrait que ñoom ñu xam loolu maa ngi gàttal di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mhm. di ko jaajëfal bu baax moom Ababacar Mboup yaakaar naa kàddu yi ci sànni am na solo lool ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax xel la waxee te li mu wax amaana euh, buñ ko bàyyee xel rek dinañ ci gis njëriñ di ko jaajëfal bu baax a baax euh, xëy na ñu jox euh, Mass Mboup moom itamit ci ci la bokk Mass Mboup ah d'accord Saa Wolof xëy na ñu bàyyi la nga sànni kàddu waaw yi nuyu naa leen xam nga leen rekk dafa jar xeex Macky Sall di farata mooy lépp lu doon taxaw ci réew mi di kenoon maanaam doon tee réew mi li aju ci culture ci diineem ay kilifaam lépp la màbbal kuy mere walla nga am lu la naqari bay tëkku boo ko ñemee bu ko jëmee kenn jëmee ko Macky Sall moo ñëw ci dëkk bi traité nit ñi suñu kilifa yi de ay citoyens comme tout le monde daf leen a mujj def ay sous citoyens parce que kenn mësta dégg lu la naqari ci sa njaboot kenn mësta dégg